yaakaar naa ne liñ doon wax ci tàmbali bi ne jarul ñuy guddal ci xam ne bi mel na ni résultat baa ngi nii yaakaar naa ne li ñu soxla woon ci xam ko lan mooy bennoo ak ban dayow la am ci diine ak itam aku ak mën a nekkam ak mën a nekkam ak yi firndeel ne mën naa nekk ak itam yi nga xam ne moo koy sabab ak bàyyi ko li muy jur yaakaar naa ne yooyu képp koo xam ne bàyyi nga xel sëriñ bi bu baax a baax danga ci yóbbulu loo xam ne dana doy sëkk moo tax dañuy sant suñ borom bu baax di sant sëriñ bi di ko ñaanal suñ borom sàmm ko yokk xam-xamam gën koo dëgëral ba lim yéene ci liggéey ci diine ji suñ boroom defal ko ci tawfiq mu jaare ko ci njàngalem cheikhul xadim mii mu koy jaare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 di tàmbalee nuyoo bi ci eh, kilifay dëkk bi tàmbalee ko ci sëriñ moor mi ñu doon tudd léegi di xalifa maam Cheikh Anta tofal di sëriñ as gedd bi nga xam ne mooy jëwriñam fii ci dëkk bi ak mbooleem sangu si tedd si nga xam ne ñoo fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci bis bi di leen ndokkeel eh, ginnaaw loolu xam naa day lu ñu diggee woon loo xam ni bu ñu ko defut mu mel ni eh, digg ba dañ ko tebbi waaye bu doon sama xalaat dong dama naan waxtaan wi ni mu demee ni ñu ko dégg ñun ñépp ni mu leere ak ni mu jote jërul lenn luñ ci toftalaat ndax ragal naa loola mu indi ci sax ak xajamal wala ak lëndëmal waaye nag ginnaaw digge woon nañ ko it day mel nii Eh, day mujj nekk lu mënta ñàkk ak nu mën a mel eh, kon dañuy jéem rekk ci lu gàtt jéem a lëkkale li sëriñ bi doon wax ci wàllu bennoo jéem ko lëkkale ak dunduk maam Cheikh Anta walla bokk jéem ko cee jàngat nu ñu ko ca mën a jukkate génne ca ay misaal yu ko firndeel eh, ñu tàmbalee ci leeral ni eh, ni ko sëriñ bu weexee ci waxtaanam ni bennoo dafa am ay xaw muqawimaat walla dafa am ay awaamil luy tax bennoo am ak lu koy suuxat ak lu koy dëgëral te loola ñaare ay jëf la war a doon yoo xam ni yu concret la jëf yu jëf yu feeñ yuñ mën a joxuñ teg ca baaraam mu doon loo xam ni luy jëmmal bennoo la walla lu koy suuxat gën ko yaatal ci biir aw askan wala biir ak njaboot ngir mën caa dëgër yooya lañuy jéem a jàngat kon indi ci ay misaal ci dundu ku baax ki nga xam ni eh, moom tax ñuy daje fii wala ci ndigalam lañ fi daje eh, bokk na ci li nga xam ne day dëgëral bennoo di ko suuxat ci biiru askan ak biiru njaboot mooy ñu nangoo dimbalante kenn ku nekk la nga tenee sa moroom nga jëm ko ca dimbali loolu defe naa ni sëriñ bi bi muy waxtaan léegi di xamle bennoo liñ ci jublu ci tàmbali ba lañ ci ak réeroo ci am euh, wax na tudd na ci jariñe waaw li nga tanee sa moroom nga nangu ko caa jariñ loolu lu am solo la euh, bokk na ci it aw tiis bu amee ci sa mbokk wala sa dëkkandoo mën naa yaatu moo xam tiis wu daj am réew la wala wu dal ci genn njaboot wala wu dal ci kenn nga bokk ko ak ñoom na ko war a bokke ak ñoom bokk na ci jokk ak bokk yooyu yépp sëriñ bi tudd na ko ci biir waxtaanam bokk na ci it nga yéene aw yiw ñeneen li nga yéeneel sa yéene sa bopp nga yéene ko ñeneen keneen ku mën a doon loolu la si différence sëriñ bi junj na ko ci biir waxtaanam bokk na ci it ngay nangoo yëkkati ci sa alal di ci joxe joxe li ñu tudd addiya addiya dafa wuute ak ki ngay dimbali wala ki nekk ci aw tiis nga di ko jàppale wala ngay jokk ak bokk addiya moom day loo xam ne koo xam ne mën na laa tane mën na laa ëpple sax lool waaye wut ak cofeelam ak dëgëral seen diggante moo tax nga yëkkati li nga ko jox jox ko ko ndax sax mën naa am moo la ko ëppale loolu it lu am solo la bi fekkoon ni àddee dañ ciy xool ku la gën a néewle wala ku wala ku ñàkk kon daanaka dootuñ joxe àddee wala boog du demee noonu ni mu war a demeeti kon àddiyaal loo am solo la it loo xam ne day suuxat ak mbokk day suuxat ak bennoo di ko dëgëral yooyu nag buñ ko doon jàngataat ci biir dundug maam Seex Anta dañuy fekk mu bari ca lool lool lool ba nga xam ne lépp sax mu ne su koo tudd mu def ko it ci ay niveau yu yu wuute ci ay mustawayaat yu wuute def na ko ci biir bokk gi ñi mu ñi mu bokkal famille bi ñi mu bokkal mbàkke wala ñi mu bokkal askan wi def na ko ci niveau boobu def na ko it ci niveau ñi mu bokkal tariixa bi ñi mu bokkal yoon wi muy murit gi def na ko yit ci niwab ñi bokkal li ñuy tuddee kër yi diine yi muy aturuxu tasawu aturuxu suufiya def na ko ci niveau boobu waaye def na ko it ci niveau national maanaam alal mustawal watan ci ñi ñi mu bokkal réew mi rek mu xaw a niroog rek li ma fi mësana junj bu yàgg muy cercle yu wuute yooyu nga xam ni dañoo jokkaloo te benn bu ci nekk nit ki am lu ko ca war ca biir cercle bi nga xam ne moo ëmb njaboot fi nga bokk muy famille bi am na cercle bu ko gën a yaatu muy yoon wi ñu bokk sa ci salon ma ko joxee léegi yoon woowu am na lu ko gën a yaatuwaat mooy turux suuf yi yëpp mooy kër yi diine yëpp boo leen boolee am na cercle gu leen ëmbaat cercle go cercle googu moo gën a yaatu murit gi cercle googu am na yeneen ko ko gën a yaatu muy réew mi ñu bokk ñun ñëpp nag. nga xam ne ku bokk tib tarixa sax ma ngi ca biir ak keneen ak keneen kon mustawayaat wala niveau yooyu yëpp maam Cheikh Anta am na lum ca def ci wàll yooyu ñu waxal léegi ci yi nga xam ne day dëgëral ak mbokk di ko suuxat day dëgëral ak bennoo di ko suuxat kon euh, ci biir mbokk gi leer na bu baax ni am na ñoo xam ni sëriñ Gaawaan daf leen féetewoo woon daanaka yoral leen seen lépp ci biir mbokk gi ngir jokk leen ngir jàppale leen ngir won leen ni lim yor moog ñoom ñoo ko bokk du jar sax nag ñuy tëdd tudd ay tur waaye loolu bu ñu ko waxee rek xëy na ñu xam euh, histoire ak taarixu dëkk bi ak njaboot gi dana ñu xam ni mu ni mu tëdde euh, ci ci wàll googu tamit ay jamono am na yum doon séddale ci biir bokki mbàkke gépp nga xam ne loolu moo moo gën a yaatu néew bi ma waxal léegi donte xaw nañoo taxaw nga xam ni eh, sëñ musaaka mi ngi koy junj ci biir wolofalam googu naan ca mooma xat la woolu wëkk néeg ya ni leen nangeen ngeen wër mbàkke topp néeg ya loola lam ci jublu mooy lu lu mu doon séddale ci bokk yi la woon xaalisub nguur danga ca woon ay jaama nga ca woon ñenn ñi nekk lañ yellool kenn ku ne jox nañ la ko lool tim mel na ni luy dëgëral ak mbokk la lu koy suuxat la ci biir ñoo xam ni ñoo bokk lépp euh, amoon na it ay hadiya yum daa yëkkati di ko jox ay ñum jàpp ne ay kilifaam ñoo xam ne da leen war a defal lu baax ci lu dul mu ci mu ci am gis-gisu ëpple wala dara waaye daa jàpp ne ay kilifaam yoo xam ne féete nañ ko foo xam ne war na yëkkati ay hadiya di ko yóbbu ca ñoom kañ ca njëkk tudd mooy Euh, Mamor jaar boroom saam kum daa faral di yët ay addiya yu am solo la yu yu yu am valeur yoo xam ni lépp lu nit di jëfandikoo rek war koo soxla ci ay xiiwal da ko ca daa boole. Euh, mën nañ ko tudd Serigne Mbacke Bousso te ñoom ñaar daanaka bu ñu leen tuddee daanaka doon nañu exemple ci wàll googu nga xam ne yëg na ni. féete nañ ko foo xam ne war nay yëkkati ay addee di leen ko jox saa yu nekk eh, ak ay xiiwal loolu laa doon dund ci néew bu njëkk bi mooy wàllu mbokk geeg yooyu beneen néew bi ci des mooy ci biir yoonu murit gi ni ñu koy nettalee ci taarix ci histoire sëriñ Touba bi mu fi bàyyi ko radiyallahu taala anhu wa nafaxan ay barakatihi dañoo wax ne am na ñetti mébét yoo xam ni bi mu fi bàyyi ko euh, yéene woon na ko te jotu koo matal jotu ko eggale bokkoon na ci muy jumaay Touba ji taxawal ko bokkoon na ci daara joo xam ni doomu aadama yi sàkku xam-xam dañ koy jublu si di jóge ci pays bu nekk bokkoon na ci it aj màkka lim dund lépp mébét moomu bokkoon na ci yi gën a rëy sax yi nga xam ni euh, yàgg na ko waajal waaye ay gàllankoor ak nekk ci ay loxo tax mënut a génn def yi farata jooju muy aj màkka waaye lu ko ñoral la lu daa jàmbat loo xam ni ña ko gën a jóge ñëpp xam nañ ni lii yitteem la joo xam ni ginnaawam ku ko ci taxawal. loola dana dëppoo ak ngërëmam loola ginnaawam ba ko sëriñ gaawaan xalaatee ni war na koo def tamit loo jëf jooxee dafay làmb aw yiw mënoon naa jóg rek paasal boppam ak kenn ku gunge walla ñaar waaye ginnaaw aw yiw la wu yaatu te yéene na ko ay mbokkam moo tax yoon wa da koo yaatal boore ca boole ca sëriñ Fàllu Mbàkke te ñu ko tuddee rek mel na ni kooko war naa mën a présenter képp ku soqe ko ci sëñ bi ci ak njabootam boole ca sëriñ Mbàkke Buso kooku it bi ñu ko tuddee mel na ni mën naa présenter képp koo xam ne ku jege woon sëriñ bi nekk boroom xam-xam buy yëngutu ci diine eh, di ci jàppale sëriñ bi nekk doomi soxna kooku it mën naa présenter wàll googu waaye boole na ca it ñoo xam ni mën nañoo jëmmal mbooleem kuy ab seex bu bokk ci yoonu murit mën nañ ci tudd sëriñ Ibrahima ja mën nañ cee tudd sëriñ Ahmad Ndiaye mën nañ cee tudd sëriñ Mayoro Fall muy ay seex yu mag ci kër gi yoo xam ni ñoom it mën nañoo présenter mbooleem seexi murit yi kon loolu suñ gaawoon da def ngir yaatal yiw woowu ba wane ni mag ñëpp ñoo ko war a bokk loolu it sëriñ bi tuddoon na ko ci ak waxam mooy li nga yéene sa bopp ci aw yiw nga mënoon koo ci sa bopp nga yaatal ko boole ca ñépp loola it luy yaatal ak mbokk ak luy luy dëgëral ak bennoo la di ko yaatal euh, ci wàllu këri diine yi it mën nañoo fàttaliku bu ñeexee neexee joxe ñaari misaal rek yoo xam ne dana ci doy alaaji Malik si raximahullahu anhu bi mu fi bàyyi ko taarix saxal na ni sëriñ gaawaan moo demoon ca dëj ba jaali ko yóbbaale fa e, ay xiiwal yu yaatoo yaatu loolu it lu lu lu am solo la ndax gën naa dëgëral bennoo gi ak jokkoo gi ci diggante yoon yi diggante rawatina diggante murit ak tiijaan e, ñu ngi nett leen sax ni sëriñ mbay si nga xam ne moo doonoon moo njëkk nag xalifa alaaj malik si biñ tolloo ci war a yóbbu seen gaawaan sigu war koo exécuter foofu te tubaab bi doon wut ay signature ngir sëriñ si d'accord ci wax nañ ni mbay si dafa joxewoon ngànt ni moom du signé du signé loolu ndax xamut sëñ gaawaan lu dut kuy def lu baax jullit biy def lu baax la xala xam ci moom xamut ci moom safaan bu tax ñu war koo teg loolu mën naa am taxawaay ba sëñ gaawaan amoon ci waajuram ba mu fa bàyyi ko loola mën naa am jeexit jooja ala kulli xaalin eh, jëf jooju mën nañoo bàyyi xel ni luy bennale ay kër yu bokkut euh, ay kilifa la euh, la xawoon cene bay daanaka dirut ñu koy ñu koy ñu koy nettaliwaat ndax ay jullit la yoo xam ne nekk nañ ci ay jafe-jafe ak ay xati-xati jamono ba ab tubaab teg loxo ca barab ba ñu doon jaamoo yàlla boo ko sëriñ gaawaan yégee te xam ne loola problème mu xaalis rek la daa jóg daal di koy régler ci xaalisam ngir génne leen ca tiis woowa delloo leen ci seen liberté loola it jàpp nañ ni luy dëgëral euh, diggante ay jullit la luy dëgëral diggante ay tariixa la euh, taxawaay yooyu yëpp da yëpp dafa am am na am na ay ay ay ay jeexit yoo xam ne feeñ na ci ñam ko defal Sëriñ Fallu kenn ku nekk xam na fi mu féete woon Serigne Gaawaan defe naa bi mu nekkoo sigu jot na ko faa fekk wax nañ ni waxtu gàmm la taseel ba fala gàmmoo wax nañ ni guddi gàmm ko daa bokkoon ci ñuy ci ñuy moom Serigne Fallou waaw loolu xëy na euh, taxawaay ba Serigne Gaawaan aman ci moom boole woon ko ci tukki booba ñu ànd ñu ànd ko loola xëy na la gën a dëgëral seen diggante mën na caa mën nañoo wax ni mën na caa bokk Euh, sëriñ Mbàkke Bousso it kenn ku nekk xam na moom it bi ñu jëlee décision yóbbu sëñ sëñ gaawaan sigu moom it bind na ci xalimaam boroom xam-xam la bind la xam bind na di ko défendre di ko layal ku liir téer yi da nga gis lay yam ci indi yépp ngir wane ni moom it dañ koo tooñ liñ ko tuumaan lépp euh, du lu méngoo ak lim xam ci moom ci ak mbaax ak doxin wu rafet loolu euh, ci gàttal daanaka yooyu laa xawoon a tarfate ci ay kayit ci ndiggante su gàtt ndax xawoon nañoo euh, naax bis bi ni tey jii la ci ngoon rek laa doog a fàttaliku ni tey lañ ko bë tey lañ koy def moo tax ba ni ma bëggoon mu yaatoo ni lawe ni yaatoowut noonu waaye junj doy na boroomum xel def naa li sëriñ bi jot a wax ñu ñëpp leer la ci ñun Eh, kenn ku ko jàngatul ci dudug sëñ gaawaan it da nga ci mën a génne lu gën a leer lu gën a yaatu lii ma ci génne xëy na bañ a na delloo kàddu gi rek moo tax eh, ma baaxantal ci sànni ci kàddu yi bu ko defee ñu ngi jéggulu ci gàtt gi ak eh, dëng gi di ñaan suñu borom defal ñu ak dégg ak topp di ñaan it mu fayal ñu sëriñ bi wax dëgg yàlla waxtaan wi képp ku ko teewee danga xam ni wala nga déglu ko da nga xam ni waxtaan la woo xamante ni wax dëgg yàlla yayoo na Euh, waxuma la dëkk bi waaye àdduna si yépp toog déglu ko ndax lu ñëw ci jamonoom la lu ñu soxla euh, jafe-jafey jullit ñépp ak jafe-jafey réew mi jafe yi kër yu bari euh, yaakaar naa bu ñu déglu woon waxtaan wi mën nañ cee mën a sukkandiku ba jafe-jafe yooyu ñu mën koo weesu bu ko defee rek ñu fas yéene liñ fi déggee ñu jëm koo jëfe li ñu jot a ci dundu sëriñ gaawaan doon ko dëppale ak li bi doon waxit kenn ku nekk am na ci aw sas kenn ku nekk am na niwoo boo toll boo xam ne boo fa doxee noona loola bu ko xeeb mën naa yokk bennoo gi mën na koo gën a defar kon nu ñaan suñu borom defal ñu dégg googu ak topp googu wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ maam Cheikh nee na mu ngi sant yàlla bu baax nee mu ngi julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu baax di nuyu mbooleem julli ñi fi teew ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu moo ngi sant mbooleem ñi fi teew ñëpp ak ñi diglu suñ kàddu ki turu sëriñ Maamoor Mbàkke xalifa maam Cheikh Anta Mbàkke ak di leen nuyu ki turu jëwriñu sëriñ Maamoor te mooy sëriñ Asgere Mbàkke xalifa sëriñ Mudu Maamun nee na moo ngi sant baax a baax sëriñ Mbacke Abdourahmane mi nga xam ne moo doon def jataay bi ak waxtaan wi léegi nii nee na di la wax ni dégg nañ te topp nañ ko ne li nga wax dégg nañ ko bu baax a baax nee na ma ngi wax yàlla nañ yàlla boole ñi nga xam ni saa yuñ déggee wax dañuy xool da ca gën a jub ñu jéem a jëfe loola nee ndax jataay bii li fi rot tey ci wàllu njariñ ak ay kàddu nee bi nga ko jëfee rek lépp baax neen dañuy wax nag ni àdduna ji nee buñ nee na ñëpp jub loolu mënut a nekk waaye ñun ñi nga xam ni lu néew lu ñu néew néew ab lim day am loo xam buñ ci tënkoo rek la ñu bëgg lépp su borom mën nañu koo jox nee na mu dellu ci kàddu yi sëriñ xaadim mi nga xam ni moo doon def léegi commentaire bi sëñ bi doon waxtaane léegi kii maam Cheikh Anta Mbacke nga xam ni taalib sëriñ gaaw sëriñ Touba la woon neen li mu waxee sëñ xaadim ni mu waxee léegi ci yoonu màkka wi neen da cee dégg loo xam ni ci ay mag yu ko doy ñu nettali ko ko moom dañuy wax ne bi sëriñ Gaawaan waaj yoonu màkkaam bi da cee waxtaan ak alxaaji Ibrahima Dia radiyallahu taala anhu nee na mu ñu ko baa danga ki boole sëñ Mun Njaay Jóob nee na maam Cheikh Anta waxtaan ak alxaaji Mun Njaay Jóob alxaaji Mun Njaay Jóob ne ko baa danga ki boole alxaaji Ibrahima Dia nee na ñaari tomb yooyu la bëgg a wax ni ci kër yi. ñun taalibe Serigne Touba yi nekk ci biir kër yi. mu yéenatee jàmm ni ñaar ñi yéente woon jàmm. suñ lépp yéwén àdduna. yéwén àllaaxira. mooy bi nga xam ni. moom la suñu bàkk doon waxtaanee léegi tey jii. ndax ñaar ñooñu muy El Hadj Ibrahima ji El Hadj Mun Njaay Jóob ku ne xam na ni. yéenante woon nañ jàmm ñoom ñaar ki seen biir. te ku ne xam na ni ba ñuy waxante loolu. kenn yëgoowut ñoom ñaar ki seen moroom. neen loolu nag mooy ak taalibe nee ma ngi sant bu baax a baax sëñ Abdou Khadir Dieng mi nga xam ni moo nekk sëtu Alhaji Ibrahima Dia di sëtu maam Cheikh Anta suñu borom dogal commission culturelle bi ñu doon wax léegi nii ñu teg ko ci loxoom tam war koo war a tam war koo mën a yorit nag ñoo ngi sant sëñ Abdou Khadir Dieng bu baax a baax nee na. ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko muy taxawaay bu am solo te baax. neen nit ñi nag. nañ xàmmee lu bari. te amul solo. xàmmee lu néew. te am solo. ndax aji wax ji doon wax tey. ndax aji wax ji doon wax léegi tey jii. ku ko dégg tey jii nag. da nga xam ni. li muy wax li muy wax. bu fi fukki nit nekkoon it. fukki nit yooyu. mën nañoo wecci. million ci ay nit. wa rubba alfin maa bariwaan a junni boo xam dañuy mel ni loo xam ni amul solo bariwaan a kenn nit mu taxaw taxawaayu junni nit kon nañ xam ni mbooloo mi nag néewul parce que rek moo ci am solo te feeñ na ci yal na yàlla fayal ñu mbooleem mbooloo mi ne moo ngi sant ñi nga xam ni mooy moo daayira Mawla Fawzayni te Njaga Njaay jiite ko ak sëriñ naa Diop ñoom. di leen xamal ni leen di leen xamal ni leen nag. yéen de fi ngeen bokk ci kër gi. yéen fi ngeen bokk ci kër gi. mën naa am sax am lu ngeen ci xam. mën naa am am na lu ngeen ci xam. mën naa am nga loo lu ngeen ci ëmpale. seen taxawaay waaye seen taxawaay. lu ngeen taxaw taxaw doyul. lu ngeen taxaw taxaw doyul. ndax ku ndax fa ndax ku xool démb. ndax ku xool démb. ñun ñi nga xam ne fekke nañ seen nañ seen i waajur. nañ jaayantee woon. ak sëriñ Muudu Maamun ak sunu waajur wi fi nekkoon kon bu ngeen defee lii kon nekkul mbette ci ñoom kon yal na yàlla fayal ñu leen yal na lu baax nag dëkk bi nag Daaru Salaam ñoo ko bokk ñun ñëpp ñun julli ñëpp nag rawatina ñuy murid yi nag bis bi ñuy taxawal nag bis la boo xam ni ku dib jullit ku dib taalibe war nga taxawal foo nekk li ñuy taxawal ndax mooy lan ñibbi Serigne Touba bi nga xam ni. ñibbi Serigne Touba bi nga xam ni su amul woon dara du baax. kon nag boo bis nag. kon nag boobu bis ko bokk nag moom ñëpp ko bokk nag moom. na ko ñun waa Darou Salaam. comme yàlla nañ ba yàlla baaxee nañ ko ñun waa Darou Salaam nag. ñu koy defal nag. ñu koy defal. mu nekk suñu loxo nag. mu nekk suñu loxo. waaye ñun ñëpp la war nag. waaye ñëpp la war nag. ba tax na nag kon. kon ba tax na kon nag. bisu julli ñëpp la kon nag. kàddu yi wax nag. Ah, kàddu yi muy wax moom. du samay kàddu nag. du ay kàddoom. kàddu yi sëñ Mor Fati la. kàddu yi sëñ Mor Fati la. kàddu yi sëñ Asgede la. nee na ñu ngi ñaan nag jëmm ji nga xam ni jëmm ji nga xam ni mooy maam Cheikh Anta Mbacke di Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke di Serigne Touba ci kaw suuf yàlla ko yàlla dëgëral yokk aw fanam ba lim liggéey Serigne Touba mu liggéeyal ko Serigne Touba tànd ko ak ñun nag ne moo ngi baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maam Cheikh Mbacke ñaan. amin amin amin amin amin allahumma amin amin amin amin amin amin amin amin allahumma amin allahumma amin amin amin amin amin amin amin allahumma amin amin amin amin amin